X9 ndaysaan xale yaa ngi noonu ragal naa combat bee mooy gën a gaaw tas yaakaar ki ngay bëreel ndaanaan la waaye ndaanaan la moom tas yaakaar xale la waaye am na jom xale la waaye mën naa bëre xale la waaye am na cër ci làmb moom tas yaakaar ndaysaan combat baa ngi noonu mbokk yi sama caméraman bi sëñ Bassirou xamul lu muy def ndax équipe nationale bu Sénégal bi football jëmm jaa ngi fii ci Adrien Senghor waaye xel maa nga fële ca Cameroun ay waay yàlla nañu yàlla suturaal defal ñu ndam at bu jot ñu ne kaan bi suñu kaan la yàlla bu yaakaar tas ndaysaan xale yaa ngi noonu ñu ci demi-finale bi Gaskel Jaama ak Tas Yaakaar bëre Tas daa bëgg a bëre bi door na ko tànk Gaskel daw na ndaysaan ak Boy Faye Tas Yaakaar daa bëgg a bëre bi Gaskel jëli Gaskel am na ngemb xale bi dafa doole macha tas yaakaar macha allah xale la waaye am na force ndaysaan X9 door na tànk Boy Faye Boy Faye windeelu ñëwaat tas yaakaar daan na ko tas yaakaar daan na gaskel jàmme tas yaakaar dem na final diggante Boy Faye ak x ku daan am tas yaakaar Tass Yakar ndaanaan la xale la boo xamante ne bàyyi leen ko xel ci làmb bu caaxaane wut làmb foowe wut làmb lu ne mën na ko am ci làmb moom Tass Yakar daan na Gaskel Jamme jël bu rëy boo ko xoolee xam ni yor na bindu mbër yor na taay bi yor na doole bi ba tey ñu ngi ci x ak Boy Faye X9 Boy tas yaakaar daan na Grand tas yaakaar daan na Gaskel moom tas yaakaar ndeysaan général bu na Boy Faye jàpp na ko Boy Faye Tmax Boy Faye Tmax équipe bu Sénégal dugal na bii ndeysaan ci moment bi combat bi di daw moment bi combat bi di daw moment bi combat bi laa koy seetaane ni en waaye xale yi dugal nañ waay waaye jaara amaleen yoon di Sénégal waay ci la dugal deuxième biom pour Cheikhou Kouyaté tax na maa bëgg ñaari jabar Kouyaté kenn moom ko ko borom ñaari jabar mooy toj terrain bi célibataire yi lu ñuy def grâce Ousseyn Diop gi ak Adama ak sëñ Basirou duñu dara boo leen waxee dem ji ñuy juutal image di fulal image waaye gàcce ngalaama équipe nationale bu Sénégal eh am na ku ne ma woon Sénégal yor na ñaari biom ba ma koy wax nee naa a ah. Ndeysaan Boy Faye mu ngi ci demi-finale bi ba tey moom ak X9 X9 nag ndaanaan la dafa mën a bëre Boy Faye fi la yegg sori na fi ñu la yegg sori na fi mu yegg sori na di nga ci génnam déet Boy Faye yegg na suuf X9 Boy Faye tegale ko 16 Boy Faye bañ na daanu na X9 daan na Boy Faye X9 daan na Boy Faye 19 daan na Boy Faye 19 ndaanaan la ndaanaan la